salaamaaleykum euh, mbokk journaliste yi maa ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm ci seen teewaay ci point de presse bi nga xamante ni man maa ko convié donc euh, Ndiaga Diaw responsable départemental de l'UJTL de Thiès secteur général du PDS au niveau de Thiès Ouest euh, membre du comité directeur du PDS membre du secrétariat national du PDS donc euh, dama ñëw tey pour waxtaan ak askan wi waxtaan ak sénégalais yi par rapport ak situation bi nga xamante ni moom la Sénégal di dund te bërki démb ñu suivre ci presse bi suivre également ci euh, réseau yi que ki nga xamante ni moom mooy président Idriss sec def na li nga xamante ni moom mooy déclaration de patrimoine alors déclaration de patrimoine boobu nag bi mu ko defee mu jaaxal sénégalais yépp Sénégal yëpp la jaaxal euh, mënuñu comprendre tey ki nga xamante ni diggante 2000 ak 2004 la exercer le pouvoir tey ci ab diir la ci nekk premier ministre tey mu ñëw déclarer patrimoine bi nga xamante ni képp ku fi mës a nekk premier ministre amoo genn wàllu xaaj bi te ci li ñu xam ci lu wérte wóor mooy avant 2000 moom sa Seck mënul woon a régler benn problème parce que Abdoulaye Wade à l'époque moo daan yónnee xaalis ci ki moo daan yónnee xaalis ci Idrissa ki nga xamante ni moom mooy Idrissa Seck pour muy gérer les activités du parti di gérer waale aussi ay activités personnelles am li may wax moom Idrissa Seck xam na ko xam na ni xam na bu baax foofa ca Paris banque bogalaise bi nekk ci Paris que ni Abdoulaye Wade da ko doon defal ay virement foofu mu ciy jot. di ci gérer ay activité parti bi di ci gérer waale li nga xamante ni également mooy ay ay mbiri boppam moom donc tey su ñëwee def déclaration de patrimoine bi mu def li ñuy xaar ci état du Sénégal li ñuy xaar ci cour de répression et de l'enrichissement illicite mooy ñu woo ki nga xamante ni moom mooy sa Seck laaj ko fan la jëlee alalam ji parce que bi ñu koy def Karim Wade il ne faut pas oublier que ñuy bi ñuy topp Karim toppee wuñ ko ne dafa luubal bi ñu xoolee ministère yi mu jotoon a exercer yépp amu ci benn ministère u Karim boo xamante ni wax nañ ne Karim Wade luubal na fa cent francs dañu ne ko rek dañu njort ne da nga yor alal joo xamante ni waroo ko am maanaam sa am am waru faa yegg te loolu ñu ko doon jiiñ ne ko sa am am waru faa yegg wër nañu àdduna ba dajal def ay commission rogatoire depanse ci alal ju dul jeex te ba tey mënuñu laa génneel dix mille francs bu ñu ne lii Karim Wade ci am amu Karim Wade bi ñu doon wër gis nañ ci dix léegi nag ki ñëw taxaw ne man man man lii laa am ñëw génne wane ne man lii la maa ko moom sama alal la waa mais yaa xëy ci ban réew lañ nekk donc na CREI yi jël ay responsabilités na Idrissa Seck wax alal ji nga xamante ni moom la wax ne moom mooy patrimoine am fan la ko jëlee parce que loolu mooy rôlu li nga xamante ni moom mooy moom mooy moom mooy moom mooy CREI parce que mënuñu comprendre koo xamante ni avant 2000 da nga doon am problème mu xaalis Abdoulaye Wade moo doon yónnee xaalis pour ngay régler problème activité parti bi diggante mille ak tey nga bëgg fi nekk multimilliardaire loolu moom c'est c'est c'est pas possible comme que nag nekkuñu ci réew moo xamante ni euh, dafay am kumba am ndey ak kumba amul ndey donte ne Macky Sall loolu la ñu tàmmal depuis bi mu bi mu faloo ak tey ci source yi ñu am sax recevoir na président Idriss Seck dégg nañ ni xibaar bi bi mu génnee bi mu sennee moom lu ko metti la moom président Macky Sall dama jàpp ne mettit boobu rek daf ko metti parce que xam na ni idris Seck ci CREI yi la jëm man loolu laa jàpp seen waxtaan ñoom ñaar warul aboutir ci lu dul CREI yi ubbi ci enquête pour ñu xam exactement mu leer ci bopp sénégalais parce que ñun politiciens aussi il faut ñu comprendre une chose ñun moomuñu sénégalais yi moomuñu askan wi ba dañuy xëy rek. gis benn Masamba wala benn ba avant muy dugg ci pouvoir yor woon alal su génnee ci pouvoir génn ci nekk ci nekk ci multimilliardaire donc yooyu dafa nekk ay mbir yoo xamante ni yu ñu yu ñu war a yu ñu war a saytu la beneen bi ci des mooy moom Idrissa Seck xam naa ni ku ku ñeme violer loi la parce que yow yaa ngi aspirer nekk ëllëg njiitu réew faloogoo ci poste njiitum réew bi commencé di violer say loi réew parce que dañuy wax ñoom ci loi bi nga xamante ni moom moo indi incompa incompatibilité entre le conseil départemental et le poste du conseil économique social et environnemental ñu ne noonu loi bi conseil régional la wax mais ñëpp xam nañ ne conseil régional moom lañ érigé en conseil départemental te constitutionnaliste Ngouda Mboup leeral na ko nee na loi yi doon appliqué wu ci conseil régional day appliqué wu ci conseil départemental Idriss Seck mi ngi violé la loi depuis le premier octobre premier octobre lañ ko fal un mois après dafa waroon a démissionner soit ci poste su président conseil économique social et environnemental soit ci poste su président du conseil départemental de Thiès parce que moom moo waxoon ne poste bu muy am rek ci askan wi lay tuxoo. premier novembre. premier novembre premier premier octobre lañ ko fal. premier novembre lañ ko fal donc depuis le premier décembre mu ngi nekk di violer loi bi. parce que weer lañ ko may pour mu pour mu tànn ci tànn ci kii bi yow nag demago demagoo au pouvoir commencé violer la loi donc bu ñu la falee kon réew mi xanaa réew réewu pëccëxoo lay doon réewu réewu hors la loi lay doon armée mexicaine lay doon donc ñu ngi koy woote moom xam na ni su dul woon contexte bi ñu nekk nga xamante ni dañu nekk ci contexte mbas dañu dañu tere ay rassemblement xam na ni man Ndiaga Diaw ak Thiessois yu mel ni man danañu génn taxaw buntu conseil départemental exiger son départ parce que tegu ko fenn li muy def yow yaa waxoon ni décret du ma fal population yi ñoo may fal dem nga ba ci biir décret fal na la nga bàyyi fa falu population yi bëgg dem wuy ji falu falu euh, falu décret te pourtant ñoom ñoo fi taxawoon fii le maire Talla Sylla traité nañ ko de tous les noms d'oiseaux bi mu demee rejoindre président Macky Sall amul lu ko waxul xas nañ ko nee nañ ko jaam la nee nañ ko traître la et man wóor na ma ni tey Talla Sylla ku ko nommé woon poste boo xamante ni day incompatible ak mairie Thiès mu bàyyi la fa sa su ñëw toog mairie Thiès je ne suis pas avec lui mais ku nekk da nga koy danga nga koy nga koy nangu da nga koy waxal dëggam donc na Idrissa Seck ñëw démissionné te dañ koy may délai dañ koy may délai parce que le 20 couvre bi le 20 la yam état kii bii le 20 la yam le ab au delà du 20 moom su ñëwul démissionné. ñun dinañ organiser ay rassemblement devant le conseil départemental ba mu ba mu ba mu ba mu ba mu ba mu quitté ko parce que dafa jot sëkk depuis boobu ba léegi muy violer waa bi et kenn nit ñi noppi kenn du wax bu ñu waxee ñu naan conseil régional la wax alors que c'est faux ñuy wax la nii rek pour di jéem a lëndëmal xelu xelu xelu xelu askan wi euh, bi mujj bi te mu jaaxal ma mooy dama leen di dégg ñoom ñuy wax ni président Idriss rek mooy troisième personnalité de l'État et que moom mooy ñëw pour régler le problème des sénégalais nee nañ juróom-benn weer la ñu may sénégalais yi voilà ñu régler seen problème su ngeen dee xool depuis bi xaw ma alliance su mburoog soow la tudd xaw ma nu mu tudd bi mu ñëwee ci réew mi ba léegi maanaam cas yi day gën a yokk chaque jour réew mi daa gën a metti beneen bi ci des quand il parle de troisième troisième personnalité de l'État mais c'est faux c'est faut parce que ci suñu architecture constitutionnelle mu ngi nii bii mooy article six bu constitution bi moo ñu énumérer suñu institution réew bi ci jiit mooy le président de la république mi ngi nii bi ci topp mooy la l'assemblée nationale troisième bi mooy le gouvernement quatrième bi mooy le haut conseil des collectivités territoriale bi mu doon wax sax nañ ko dissoudre au conseil des collectivités territoriales bi Idrissa doon wax nañ ko dissoudre moo nekk ci kaw conseil économique social et environnemental moom institution judiciaire yi rek la la la féetee kaw te ñooñu ils ont leur propre pouvoir mais te ñun régime présidentiel lañ nekk c'est le président de la république qui définit la politique de la nation donc dañu bàyyi caaxaan yi li am ba des mooy nag créer autosaisir ñu leeral ñu li nga xamante ni moom mooy moom mooy patrimoine bi parce que mënuñu la ñu toppee Karim tuumaal ko sosal ko ci lu dul dëgg ba tëj ko ci kaso keneen ñëw indi lu ëpp lañ ko doon toppee ne man lii maa ko détenir maa ko téye ba pare ñu bàyyi ñu ñu koy bàyyi noonu muy sedd of nag li mu wax dafa leer dani ñoom il se démarque parce que dafa dafa am dafa fuité ñoom fuité boobu lañu wax ne ñoom du ñoom ñoo ko génne mais déggoo leen benn yoon ñu ne lii ñu bind ci déclaration bi amul waxuñu loolu de parce que aussi ku nekk da jël say responsabilité fuite bi génn na xamuñu kan moo ko génne of nag day setal boppam. parce que waaw dé mais est-ce que dañoo wax ne amul est-ce que dañoo wax ne amul ñoom waxuñu sax ci waxu chiffre yu amat ak chiffre yu amul ñoom dañu wax ne rek mbir mi génn te li ko génne du ci ñoom dañoo ils ont dégagé leur responsabilité mais léegi ndax ndax am na ak amul ndax dëgg la am du dëgg loolu CREI yi moo koy leeral mais moo tax man aussi man j'étais transparent dama ne nag CREI yi jël ay responsabilités am ñoo Idriss Seck ñu leeral moi c'est ce que j'ai dit. je voudrais juste me prononcer par rapport à la situation politique du pays parce que pas plus tard qu'avant-hier nous avions tous entendu la déclaration de patrimoine du président Idriss Seck qui nous a tous étonnés pour la bonne et simple raison que nous savons tous qu'avant 2000 Idriss Seck même si parfois il déclare avoir vendu sa maison en 2000 pour financer <laughs> l'élection de Abdoulaye Wade moi ça m'étonnerait que cette déclaration soit même vraie. Parce qu'avant 2000, c'est Abdoulaye Wade lui-même qui envoyait, qui faisait des virements, Abdoulaye Wade et ses proches, qui faisaient des virements pour, pour le, sur le compte d'Idriss Seck au niveau de la banque bogalaise à Paris. Idriss Seck connaît très bien cette banque. Donc, si aujourd'hui Idriss Seck se retrouve avec une fortune qui dépasse largement, je dis largement, Euh, euh, euh, les les biens mal ak supposés mal acquis qu'ils avaient attribués à Karim Wade vraiment cela pose problème parce qu'ils ont fait le tour du monde du ciel et de la terre comme il l'appelait à l'époque Karim Wade ministre du ciel et de la terre ils ont fait le tour du ciel et de la terre et ils n'ont trouvé aucun franc appartenant à Karim aucun franc donc aujourd'hui si Idrissa Seck se présente avec une telle fortune mais la CREI doit prendre ses responsabilités pour que cette affaire soit tirée au clair. Parce que nous, politiciens, vraiment, nous, sommes, nous devons respecter les Sénégalais. On ne peut pas se lever un beau jour et venir présenter des, des, ces, ces, ces, cette énorme fortune et dire que ça m'appartient alors que vous n'avez exercé que 4 ans au pouvoir. Avant 2000, c'est Abdoulaye Wade qui gérait votre, votre vos, vos, vos besoins. Donc voilà un peu ce que je voudrais demander à la CREI, puisqu'ils ont euh, euh, accusé Karim Wad, même si c'est des accusations fausses, parce que jusque-là, ils n'ont pas amené des preuves, mais ils l'ont mis en prison. Donc aujourd'hui, c'est à la CREI de prendre ses responsabilités, de convoquer M. Idriss Sek pour qu'il puisse, n'est-ce pas, éclairer la lanterne des populations euh, sénégalaises et sénégalaises. L'autre chose, depuis le 1er novembre, depuis le 1er décembre Idrissa Seck est en train de violer la loi parce que quand on parle d'incompatibilité entre le conseil économique social et environnemental et le conseil départemental de Thiès euh, euh, certains même disent que voilà on c'est pas le conseil départemental mais mais c'est le conseil régional mais le professeur Ngouda Mboup j'espère l'a expliqué clairement que les lois qui s'appliquaient au conseil régional s'appliquent maintenant au conseil départemental. Donc Idriss Seck avait n'avait qu'un seul mois pour démissionner soit du conseil économique, social et environnemental ou du conseil départemental de Thiès. Donc aujourd'hui, je sais nettement qu'il est dans le, entre le marteau et l'enclume, mais il est obligé de venir démissionné parce que nous n'accepterions pas qu'il continue à violer, nest pas, la loi. Il sait que nous sommes dans une situation qui ne nous permettent pas aujourd'hui de faire des rassemblements. Mais si toutefois ils continuent à violer le, la loi jusqu'au 20 prochain, nous allons organiser un sitting devant le conseil départemental pour, pour exiger son départ. Parce qu'on ne peut plus accepter qu'il continue et qu'il nous retourne notre poste. Parce que c'est le PDS. C'est le PDS qui a élu Idrissa Seck au conseil départemental. Si vous vous souvenez, l'alliance que nous avions faite avec avec Idrissa Seck lui a permis de gagner à l'époque le département de Thiès parce que le PDS était majorité majoritaire au niveau du département de de de Thiès donc nous lui laissons jusqu'au 20 il a jusqu'au 20 pour démissionner du conseil départemental sinon nous allons vraiment exiger son départ par des 20 février oui sinon nous allons exiger son départ maintenant d'aucuns disent que voilà Idriss Seck c'est la troisième personnalité de l'État c'est faux C'est faux. Il n'est pas la troisième personnalité. Aujourd'hui, sur notre architecture institutionnelle, si on se réfère aux dispositions de l'article 6 de la Constitution, vous voyez, c'est le président de la République, c'est l'Assemblée nationale, c'est le gouvernement, même le Haut Conseil des collectivités territoriales, qu'il demandait ça, même sa dissolution, et au-dessus du Conseil économique, social et environnemental. Donc aujourd'hui, il est la cinquième de, de, de, de l'État. Donc comment peut-il régler le problème des Sénégalais Alors que dans notre constitution, c'est le président de la République qui définit la politique de la nation. Mais arrêtons de jouer sur la conscience des Sénégalais. C'est pas possible. Maintenant, ça c'est juste le début parce qu'il fallait en un, en un premier temps alerter, puis nous allons vers des rassemblements. Parce qu'il va démissionner, sinon nous allons lui forcer à démissionner parce qu'il ne, ne peut pas continuer à violer la loi. Il est au Sénégal? le président Wade est au Sénégal, il se porte très bien. Donc vu le contexte dont nous vivons, il ne peut pas continuer à faire des activités, vous voyez, <laughs> son âge est un peu par rapport à cette maladie. Donc il ne peut pas s'exposer dehors comme tout le monde. Mais il n'y a rien de plus normal. Si Wade communique avec le président Macky qu'est-ce qu'il y a de plus normal maintenant nag pour si vrai ou faux à, à, au président Wade de de de de le dire mais si c'est vrai moi je n'y vois aucun inconvénient. La gestion du coronavirus par l'État du mais catastrophique catastrophique vous avez vu mais si aujourd'hui avant la fin de de de du premier vague s'il avait si si le président Macky si le gouvernement. avait maintenu ce même rythme, mais aujourd'hui, on n'allait plus parler de, de de coronavirus. Ou, mais vous avez une seule fois, est-ce qu'on vous a une fois, seule fois convié à une cérémonie où on donne des, des, des, des du riz, de l'huile ou bien des gels, quelque chose comme ça. Maintenant, ils ont tout, ils ont laissé les, ils, ont baissé les bras. Alors que le, la, la, la maladie est toujours là. On doit se mobiliser, on doit s'organiser, Ah si, ah, mais bien sûr. En fait, on ne l'a pas fait en présence de la presse. Parce que tout simplement, aujourd'hui, même, même le problème de Mbourkat, même, même, même le problème de Mbourkat, aujourd'hui, beaucoup de responsables politiques y ont, sont partis là-bas juste pour faire une communication, pour y avoir après une buzz politique. Récupération politique. Alors que c'est des pères de famille, des mères de famille qui sont aujourd'hui dans le désarroi. qui ont besoin que leur problème soit réglé. Moi, je suis allé à deux reprises là-bas, mais je n'ai pas voulu faire une déclaration. Je suis sur la logique de, de faire tout mon possible pour que ce problème soit réglé, mais pas pour y avoir un gain politique.